asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine ñaar fukki fan ci soxbaan muy weeru baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett fukki fan bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la konte ci altine ji rafet na lii ci gën a taamu moom altine mooy ku ca watu wala ku ca daloo altine ju nekk sunu la ci ku ko man mu woor ko ñaanu bés bi yow sunu boroom nun dey gëm nanu li nga wàcce tey topp nanu sa ndaw yàlla na nga du bind ci way saxin ñi rabbana amanna bima anzalta wattabana rasula faktubna maa shahidin rabbana amanna bima anzalta wattabana rasula faktubna maa shahidin xadisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ubbali ci seytaane la bàyyi ko kon na koy delloo loo man saa yoo waxee di ubbali xamal ne seytaane moo la reetaan xaddis bi buxaari ak muslim nettali nañu ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ama tasaaubu fa innama huwa min alcheytaani falyaruddahu mastataa fa ida qaala ha daxika minhu cheytaan rawahu buxaari wa muslim waxtu julli yi suba waxtam lana tàbbi six heures deux juróom benn waxtu yu tegal ñaari simili tisbaar treize heures quarante trois benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak ñett